mbokki Grand Yoff seen doom moo leen di nuyu mbokki Grand Yoff commerçant tablier ambulant jakarta cak-cak ñëpp ñuy daan seen doole di ñax ngir jëriñu ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne nag Sénégal doomu Grand Yoff moo ñëw pour tabax Sénégal te bu ñuy tabax Sénégal dañuy tabaxaale Grand Yoff léegi nag xam nañu ne góom yi juróomi góomu Sénégal yi métti na ndóol bi a ngi fi ñàkk njàng ñàkk xëy ñàkk kaaraange ak ñàkk wér loolu moo nekk Sénégal loolu kan moo koy faj docteur Kama moo koy faj cinquième président du Sénégal kële kan la dégguma leen de kii mooy kan saajo Mané boo ko génnee ci football bi dara desatu ci Sadio maane barewul coow wala dafa bare coow mën na football wala mënul football yaru na wala yaruwul baax na wala baaxul mu ngi dimbale waa dëkk bi wala dimbalewu leen que di ngeen ko gis muy ay bërti bërteeg yu ñàkk fayda Sadio Mané ci football bi Kama ci politik jógoon fii géejawaay ñëw ci géejawaay hip hop waxtaanee jeunesse bi ak culture fekk fii ay grands promoteurs de la culture ñu démontrer fa que tey bu ñu buggee développer culture dañuy defar patrimoine bi li ñu am ci culture ñu jël ko protéger ko copie privée yi ñu protéger ko ba nga xam ne li nit ñi produire ñu mun leen ko bàyyee ñu ciy suturlu ñu fexe ba nga xam ne lépp luy production culturel ñu yombal ko xale yi ci centre culturel yi ñu mun a wane seen talent gratuitement ñu mun leen defal promotion culturelle li ñuy def ba mun a wër àdduna ba ñu mun ci gis seen bopp ba pare personnel culturel ñu fexe ba artistes yi di dundee seen seen art ba nga xam ne dootuñu fi ketal kenn ku feebar mais dañuy am benn protection sociale ba bu ñuy retraité loolu moo doon waxtaanu tey bii ñu kontaan ci trop di sant di gërëm waa Guédiawaye yëpp merci beaucoup